Hey! félicitations ak remerciements yi tamit ñu ngi ko koy jagleel moom suñu président ndax euh, coow li coow li liw li liw bi ngelaw gi te lépp maam Tamsir la lépp Tafsir Moussa jóob la. remercier jigéen ñi nga ñi fi teew euh, wax nga ko ñu tàcc seen bopp ay jàmbaar fàq tëdd ñoo fi nekk vraiment jàmbaar yi Tafsir Moussa jóob ñoo fi teew. Euh, vraiment ñu leen di remercier ñoom it seen taxawaay si suba ba léegi ku nekk xam na ne jamono yitte yi bari na xat-xat yi bari na mais ñu bàyyi seen lépp si suba ba léegi yéen doog ñun ndax lan ndax développement bi ñu leen woo daf leen a ñor te incha allahu rabbi di ngeen xam ne goor ngeen ko séqal di ngeen ci ànd ak Tafsir Moussa jóg lu mu mën suba ba ngoon dina leen jàppale ñu àndandoo di xàcceendoo di dóorandoo. saabu bi maa ngi ko defaree diwtiir koko ak huile palmiche ak huile bi ngi toggee am na ñu ko fi xam. yóbbu saabu bii bi ma ko sangoo ba mu jeex saabu bu ne jox nañ ma ko xoolal sama kanam daa ëmb ñu ko saabu bii ku ko ñam dootoo sangoo beneen saabu day rataxal sa der bi su fekkoon ngay am ay taas ak ay bouton da koy maasale sa peau bi day dëgër dangay am peau bu dëgër boo xam ne lu lu lu bëri du la mun a gaañ sa peau day dëgër ba pare day set wecc lii buy la. waaw déglu leen ko kii nag mooy lokal buy local baa ngi ko ya am naa yaakaar ne bi ñuy def formation am nañu ci teewoon bu fekkee dafa am lokal produit local bu dul local bu ci nekk ngeen wax produit si chèque la kii ñam ngeen ko yéen ñëpp yéen ñi bokkoon ak ñun formation bi léegi dañoo bàyyi dépassé di jënd ay boisson yo xam ne gaz yaag yu ma la mënti wax mm-hmm. ñun li ñuy nga xam ne moom la ñuy béy nga xam ne suñu gàncax ñun dañ cee bëgg dund ci loolu la yëngu ndax dañ ne consommer consommer local waaw ndax mu consommer local mooy nit ki li ngay bay moom nga war a dundee loolu mooy yoon mais paa ngay dem di jéggaandi waaw li nag euh, sidéem la sidéem moom dafa baax ku nekk xam na ne lu baax la ci nit waaw baax na ci ay tension lu baax la daal ci ci doomi aadama waaw lii moom saabu fóot la bari waaw di gërëm ñi fi teew ñëpp di sant sama waa koñ di sant maam Tamsir bu baax a baax si liggéey bu am solo bu muy defal jigéen ñi parce que ñun suñu koñ bu soxna Faat Bintu ñëwee foofu di waa affaire li politique ni suñu jigéen ñi koñ ñu bëri dañoo weddi mais dañoo dem ba ci biir ñu gis ka ne moom day jàppale jigéen ñi te bu leen jàppale tamit du toog rek di leen seetaan day continuer souvent di leen suivre di xam ci lan lañ nek ndax ñoo ngi liggéey wala ñu mom daal ñu ngi koy sante bu baax parce que bëggul jigen bu tok muy jappalé jigen jigen ñi ñëpp di leen sante ah, di gërëm mam tam mi nga xamne mom mo ñu fi indi ñun formation bi dañoo ñëw rek pour jappalé leen mais ñun def nañ ko ba paré ñun wa Liberté 2 euh, di jappalé mam tam sir waaw di ko jappalé jàppale euh, parce que wax deug fa neex yalla depuis ñu dugg ci mom gis nañ ci mom lo xamne Euh, dugg nañ fu nekk te gisuñu ko kon dañ koy ñaanal rek di ko ñaanal yokkook ndam ci barke Cheikh Saad bu Habib. di ñaan yàlla liggéey bi ñu commencé di ko liggéey yal na ko yàlla saxal mu continuer ba ñu am ci fekk njariñ ñun nag ñu ngi ci liggéey jus liggéey saabu defal conserve légumes ak sump bi. tey daal moom macha allah depuis 7 man bi may ñëw fi presque 7 fekk naa déggeen presque eggale na liggéey na saabu yi ba pare ndax moom def ci farlu def ci fulla ak fayda depuis boobu ba léegi ñun ñu ngi ci liggéey bi tooguñu ah liggéey bi nag jàmm rek laa ci gis ndax ñun suñu groupe ñu ngi ciy ñu ngi ciy yëngu carrément temps yi nag kii événement kankuran yi moo ñu téye woon ba ñu gëj a liggéey mais ñu ngi ci programme waat taxawaat ci liggéey ci. di ñaan di ñaanal Fatou bintu ak maam Tamsir mi nga xam ne moo ñu dooleel ba ñu commencé formation yi di ko def te kenn ku ne dina ci dem ba gis boppam. di ko ñaanal lii nga xam ne ci lay yëngu moom tam yàlla na ci am ndam ñun ñëpp ñu fekke kenn bañ a wuute. ñi li ñu leen waxoon yëpp dëgg yàlla ñoom def nañu ndaxte bi ñu waxee dëgg na leen du amuñu xaalis bu ñu leen jox mais comme te xam-xam ngeen bëgg dinañ leen jàppale si li ngeen bëgg te li ñu waxoon yëpp noonu lañ ko defee ndax bi mu demee Fatou Bintou mi bi ma woowee ba léegi même démb dafa noonu daf may envoyé xaalis moom mooy lii ma ne ko déedéet ñun tamit ay bor lañu mënuñu ñëw ngeen jël seen xaalis di ko xam ne lii xaalis la xaalis lañ ci financé mu def ko booku tak yëg bi ak yëpp la ñu boole macha allah li ñu leen di ñaanal daal mooy ci kanam loolu rek lañ leen di ñaanal yàlla li ñu waxoon moom def nañ ko ñun kay ñun ñoo des mais ñoom sas nañ ñu yàlla sas nañu léegi kay li ñuy ñaan yàlla yàlla li ñu bëgg rek yàlla mottali ko dem ba ci kanam ak kanam fii Espagne la wala Guy Murit Guy Murit la Guy Murit la Diop di def li yëpp day jàppale borom këram moom moo muy xam-xam boo xam ne ñun ñu ko jëlaat ci yéen suñ leen ko xasee jox pare na moom mi leen ko jox mu ngi nii bu leen ko xasee jox pare na ci ndax kuy dem sa xam-xam ko yóbbu baax bu ko defaral seen salaamaaleykum mbooloo mi Euh, donc ku nek mang lay nuyu sa tour ak sa sante di kontaan trop euh, donc ci teewaay bi fi en tant que euh, donc invité mais aussi en tant que expert damay kontaan trop ñëw si donc manifestation bi bi nga xamni donc sama frère donc moo organiser donc muy donc tafsi Moussa Diop donc li tax ma ñëw mooy donc dama kontaan donc ci initiative mi jël donc dans la commune de Mbour De financer les jeunes et les femmes dafa yombul donc leader politique euh, donc dafa def donc une donc une politique autrement dafa beaucoup d'appeler les jeunes. parce que les jeunes, si on regarde donc population du Sénégal nous ëpp population bi les jeunes donc ku jàppale jigéen donc ak jeunes, donc le nga Sénégal

ak naka la defé lo loo ni donc buñu ñu jaayee li ñuy jaay donc dañ ko mëna donc épargner donc mën ko conserver loolu mooy ay études de gestion yoo xam ne nii donc danañ ciy jàppale donc suñu wàllu xam-xam. donc yemuñu si loolu rek donc dane moom aussi euh, de Ousseynou kaay ñu ànd si liggéey bi jàppale jeunes yi. jeunes yi yu bëri ñoo xam ne ñoo liggéeyuñu parce que amuñu ay projet yoo xam ne donc mënuñ ko bind seen bopp. Euh, parce que amuñu projet yo xamni ni donc euh, donc nañ tém tey jii ni donc dem ci banque ñu ñu mën a génne xaalis moom dane donc kay jappalé donc jeune yi parce que donc gouvernement du Sénégal dafa donc euh, donc du initier emploi jeune génne un budget presque de plus de 3000 milliards pour jappalé jeunesse bi légui mu ne Ousseynou donc kii yooyu donc le budget de de 3000 milliards euh, jeune bu si bëgg am il faut nga élaborer ay projet mhm. élaboration bobu nak donc yombul donc motax tax ma donc ñëwul ci jeunes yi donc amna programme bo xamné ni 150 jeunes donc bugg donc ñu and ci liggéey ci pour ñu former len naka lañuy ñuy bind donc ay projet de développement mhm. te lolu incha donc si ki di ñëw semaine yi di ñëw mhm. donc danañ ko commencer si ay 100 jeunes donc ba si 150 jeunes lolu dama bëggum donc ngeen tàcc loolu nga xam ni Tafsir Moussa Diop personnellement lolu moko initier initié mo tax tey jii donc lolu mo waral tey jii donc sama téway donc euh, donc yaakaar naa ne donc initiative bu ko jëlee du bugg jàppale jeunes yi donc ak femmes yi aussi donc ku jàppale jeunes yi donc jàppale femmes yi donc jàppale nga Sénégal bu ñuy wax tey parti socialiste mun naa wax ni duñu ñu génn département Mbour parce que le grand poète grammairien artiste président le premier président poète Léopold Sédar Senghor doomu département bi la Joal Fadiouth bu ñu bu ñu ku Ousmane Tanor camarade premier secrétaire général national doomu Nguéniène la doomu département bi la bu ñu ku la ministre Caroline Fay, doomu département bi la bu ñu ku ni Demba Diop premier maire wala maire boo xamante ni amoon solo lool ci biir commune Mbour doomu département bi pour ne citer que cela coordination bi ñu tudd Tafsir contrat divin que ancré dans les valeurs socialistes et dans les vertus socialistes contrat divin que ñu avons ak Tafsir Demba Diouf ñun dans le parti socialiste. Non, nous, parti socialiste nous est foncièrement socialiste gis nga la cartologie manam politique de Mbour wane na ni laa wax maanaam que ni les socialistes sont ancrés dans leur base les socialistes sont toujours laa wax maanaam au niveau de leur base Té nek nañ fi te incha allah échéance yi di ñëw ak yeneen yi ñëw dinañ wane ni que ni laa wax Mbour est une bastion la commune de Mbour est une bastion socialiste. ak santam jox leen yéen ñëpp seen wàccuwaay leen tatagalit bu baax a baax a baax. Euh, vraiment ñuy exprimer waat suñu mbekté ci yendu bi ñu yendoog yenn contane nañ ci lolu ngeen yëg ne aussi Tafsir Moussa Diop mi waral li mi waral ndaje mi yek na ko na ci yenn am mbekté lolu ndax dañuy faral di wax ne bay ci say wom kon bu ñëwee def ci li ci koñ bi tambalé ci kërëm ak ay dëkkandoom vraiment man na né mbekté la Euh, wax nañ ko léegi gis ngeen ñi fi jaar aussi ci présentation nga xam ne ñii ñu ngi jóge ci yeneen quartier ci biir Mbour mhm. loolu day wane ne mu ngi présent mu ngi ci biir commune bi di fi liggéey liggéey bu mucc ayib mhm. di liggéey liggéey bi mucc aji ayib euh, ci biir parti socialiste ci biir première coordination euh, kon tey ay jigéen bu ñu ñëwee

nima ko waxe won sank di ndo ak yen di dorando ngeen xamne mam Tamsir yen la am yéen it ngeen am euh, vraiment euh, di remercier mbollem ñi nga xamne tew nañ fi ci bir première coordination euh, di remercier collègue yi ak xaritam yi nga xamne ñu ngi andandok mom di liggey liggey bu mucc ayib fi si bir commune de Mbour di remercier aussi suñu formatrice bu ñaawul bi machallah soxna Digeen Diop yor xam-xamam bu mucc ayib di ko jox jigéen ñi vraiment fuñ ko oo suba ngoon guddeeg bëccëg mu takk ndigam àndandoo ak ñun lépp ngir ndamu euh, maam Tamsir maam Tamsir Diop daw ci dara vraiment kon euh, dañuy ànd ak mbégte rek waaw euh, kàddu yi sax fum mu toll nii dafay réer men ngeen xam ne rek tey jii si tey lii nga xam ne samp nañ ko fii si biir onze novembre nekk fii Sogeen Euh, naxe penda ñuy ñaan ñu fi séddale ay millions yi millions lii nga xam ne maam Tamsir bàyyil na leen fi muy produit yi soxna Dégét ñëpp wax na leen ko léegi pot boo si yëkkati muy 1000 francs tey boo fi évalué woon lii am na fonds de départ boo xamante ne balaa ñu leen di sax finance financièrement di ngeen mën a am fonds boo xamante ne di ngeen commencé seen liggéey te bu yàggatul dara bu yàggatul dara di jot financement ndax euh, am na ñoo xamante ne jotuñu fee mën a teew tey ndax seen liggéey xëj na moo leen tànc waaye jot nañ ay financement à hauteur de 7 million yoo xamante ne Tafsir Moussa moo leen accompagner ba man see am accès waa ku defal loolu jàmbur nag boo ñëwee ba si sa kër nooy def. xanaa kon ñu dellu santaan ñëpp. gërëm ñëpp di ñaan yéen ñëpp ngeen jàpp ci liggéey bi mu jëm kanam vive le parti socialiste vive Tafsir Moussa Diop jërë ngeen jëf